يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا tey nag dañu ñëw fii pour def annonce di leen wax ni suñu boutique en ligne bi nga xamante ni ubbi nañ ko tout récemment disponible na incha allah bu leen duggee ci facebook bi tàppee boutique Mour say Ceex di ngeen fa gis euh, li nga xamante mooy publication yu ñu fa def boutique bi nag lépp loo xamante accessoires accessoire la jàllaabe malfa robe parfum lépp loo xamante nii rek jigéenu jullit bi bëgg na ko solo moo xam mariage la moo xam baptême la moo xam beneen cérémonie la boo xam ne bëgg na fa dem lépp loo xamante ne yaa ngi koy soxla ci sa solin sa accessoire parfum lépp rek boo demee ci boutique bi rek di nga ko fa fekk mais boutique bi nag dañuy préciser que ne boutique en ligne la dañu ngeen di passer seen commande ñu defal leen livraison bi ni incha allah le 15 la ñuy démarrer kon nag képp koo xamante ni bëgg nga passer sa commande mun nga woote ci numéro yi ci 77 965

adresse email bi xamanteni moy ni kon na boutique baa non mbokk yi di len wax na rek sen boutique la ubbi nañ ko pour yéen di len jox rendez-vous rek inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب